discours yi nga xamante ni jib na fa mm-hmm. daanaka mm-hmm. jàngat nañ bu président Macky bi mais am itam discours yoo xamante jib na fa ma bëgg nga mm-hmm. taxawal ma ci ñetti discours bi ci jiitu moo di bu docteur Ahmed Khalifa Niass amaana titre biñ koy invité gisuñu ko ñun mais li ñu jàpp mooy peut-être chef religieux lañ koy invité parce que des ci invitation yi day am chef religieux ak itam chef de parti yu mel noonu na ko fa ci kanam président ak itam discours docteur Abdoulaye Lam bi nga kuréelu Ibaadu Rahman ñetti discours yooyu laa bëgg nga boole jàngatal ma leen. waaw ñetti discours yi de wuute nañ wuute nañ waaye wuute nañ tamit ay forme parce que Ahmed Khalifa Niass waxalul diine boppam la fa demaloon. ok docteur Abdoulaye Wade waxalul diine ab kuréelam la fa demaloon fee ña doon wax waxaluñu diine l'islam parce que gis naa ñuy def benn comparation naan. Euh, église bi ak diine l'islam non fee ña fa dem demaluñ diine l'islam de. yoruñu kàddu diine l'islam Ahmed Khalifa Niass kàddu boppam la demee bi ñu koy présenté lan lañ ko présenté Ahmed Khalifa Niass. muy wax xalaatam comme man mii di wax sama xalaat. docteur Ablaye Lam ab lam la yore bu tudd jamaatu Ibadu Rahman point waxaluñu waxalul diine lislaam kon ñoom seen i discours engagé wul kenn. engagé wul diine engagé wul sunna engagé wul yonent engagé wul benn jullit seen bopp la ñu waxal. diine lislaam amu fa woon kàddu diine lislaam kenn ku ci ne ñun libre nga dem jàng lim wax nga xam ko xam ku jaarul ci yoon lan la yàlla wax ci moom loolu bu ko su ko ku am tur ci diine ji parce que am tur ci diine ak yor baatu diine du benn ki am tur ci diine ji bu waxee li diine wax diine ko wax su waxee li diine waxul diine waxu ko moom aw tur dong la am ci diine ji église bi nag ñoom am nañ kàddu diine fii ci réew mi ñoom booloo nañ tànn kenn koo xam ne dañ ne mooy wax ci seen turu diine waaye fii ku jógee Touba ku jógee Tivaouane ku jógee Kaolack ku jógee Yoff ñépp a ci yem kenn waxul ci turu diine ku ci nekk ci seen turu maam seen turu famille seen turu tarixa la ñu wax engagé wul diine mhm. discours bu fa waay def ngir yàlla bu ñu ko tappal l'islam de seen turu famille ak seen turu tarixa ak seen turu mouvement islamique lañ ko defee mais pas ci turu l'islam que ñoom ni ñu amee sañ-sañu jël kàddu wax noonu laa ko sañee noonu la ko keneen sañee appareil yi ñu ëmb rek moo wuute appareil bi mën na rëy mbaamu ndaw mais appareil bi lislaam comme ni ko catholique bi amee foofu nga xam ne dañ ne bii moom mooy kàddu église mhm. loolu amu fa bii mooy kàddu diine l'islam bon ginnaaw bi ñu leeralee ñaari forme yi nga xam ne bokkuñu ñee waxee nañ dina mais ñii ci seen bopp la ñu waxee <laughs> euh, gis nañ tamit ñu saluer discours yi euh, fond bi kàddu yéen fa génne man dama wax ne rafetlu ma ña fa dem gaa parce que président mënul woote te kenn du dem église bi li mu wax ci discours bi loolu la ñëpp di bon ñi am dignité te dëgg ñor leen li kàddu église bi wax loolu la ñu wax président mooy amoo sañ-sañu élection yi di romb le 2 avril te mën naa nekk am nga sañ-sañu def ko nga def ko kàddu gi rafet ne mais man dem bi laa njëkku la d'accord man moom dem bi église ak keneen a ci yem dem bi ay caaxaan la dañ faa wutiwul dara jàpp dat soxlawul ñuy dajale nit ñi jël ay une heure de temps te wax na leen ko nee leen su ma neexoon man maay toog jàpp dat bi sañ-sañ laa ci am et encore lii ñuy wax buñ ci jógee du mënul continuer dara ci li ñuy def kon daje bi caaxaan donte nag bu fa demee wax li ñëpp di wax du jëriñ dara. bi nga ma gisaal bu wax doon jëriñ ci moom mu jëriñ man su doon ne man may dogal man. ma yor kàddu googu. sama église wala sama jàkka wala sama émission laay toog. wax ko ko te dina ko jot. yow nga foog ne nga foog ne église bi bu defee discours président du ko déglu. da koy te ca la koy gën a dégloo ci dialogue ba fee mu toog. fu ci waay toog def ko discours dana ko déglu. ma dese sama dignité toog parce que fee dem fa. dafa am lu muy tegtale maanaam président dafa tolloon ci yëg ne pouvoir bi jeex na muy làmbatu ndax mi ngi ko dese ba léegi wala déet foog nit ñi wër ko naan ko président son excellence pour mu yëg na affaire bi kon mi ngi existé ba léegi ah ok euh, existé wul moom la ba léegi waaw ba léegi mais jeex na su dee kaawu ñoom Ahmed Khalifa Niass na nga xam ne moom fawee alxuraan ji mu nekkee ci réew mi mhm. wax dëgg yàlla man ma dégg ko ma naan xaw ma la baari din wala <laughs> dem di ko ubbee karim Ah, sëñ bi lii ñaaw na ñaaw na ci yab gi mu yab diine ak di fowe alxuraan di ko dugal ci ay caaxaan yoo xam ne jël alxuraan yi yàlla ji di ko firee nu kan mais lii ba kañ saa dama gëm ne diine amoon benn kàddu ci réew mi lii mu wax nii dañ ko ciy topp parce que yabaate la seen affaire yi muy jël xaw ma laa bari wala karim mooy karim waat ban lien maanaam <laughs> subhanallah mais dafa am itam foofu bëgg naa ñu taxaw parce que am lu mu souligner ci kanam président que ne ko sëriñ si. Ah. ceeb lañ lay ñaan. suukar. Ah. Ah. et tout paasi mac et tout man mosuma la ñaan loolu itam euh, bon est-ce que du doon réponse su ñu baree bari li ñu jàpp ne moo tax kilifa diine nii noppi. maître Khalifa ko wax de. léegi nag mu des. jàpp naa ne sëriñ si am na am na ci ñoo xam ne jege nañ leen parce que lii mu leen wax nii man jàpp naa ne dafa xotti seen orma parce que bu demee ba toog foofu naan ko président mm-hmm. sëriñ si ay paasumaak lañ lay yalwaan ak ay suukar rek ay ceeb loolu mooy la cest à moom nag am na dignité nee na du ko ñaan quoi te man sax gëw ma loolu gëw ma ne am na benn dignité bu tax muy taxaw foofu naan ko duma la ko ñaan ñëpp xam nañ li mu bëgg président musul woote benn dialogue mu dem lu dul ne audience la fay revendiquer président Macky Sall lànk ne du ko dalal kenn xamul kañ la gëj a gisee ak moom te wax na ko sax nee kon ma profité ci jataay bi ba mu demee Kaolack noonu la ko waxaatee comme mënuma laa gis ma profité fii ma wax la ko tëj googu ko tëj ñoom amuñ dara ci président lu dul bëgg di daw am ci moom dara mu lànk teg tànkam fi mu ko teg c'est bon loolu sax man bon naw naa ko ci lu baax la parce que nit ku tekkiwul dara mënoo fu mu jógee nga dalal ko ci palais bi moom tamit mu leen di dawloo comme c'est pas possible waaye noonu mu fowee diine bu fowee sëriñ si du ñu bett ku mën jël kàddu yàlla di ko fowee ci ay caaxaan di ko tekkee ay Karim Wade mm, kon boo ñëwee naan sëriñ si dañuy dem ci Macky Sall di ko yalwaan ak dégg boo xëy na moom moo ko gis moo xam ñooñu waaye man jàppoon naa ne loolu keneen ku ko waxoon ku ne ci pinc mi bu nu xëyee da nga leeral li nga wax mbaa nit ñi yëg ne am na réponse yu kawe yu war a jógee fu kawe yu ñëw dal sa kaw malheureusement duñ ko def bi ci des mooy bu docteur ablaay Lam tamit xaw na nuroog bu jàngu bi. waaye parce que moom itam sàkku na ngir ñu respecté li nga xam ne moom la conseil constitutionnel wax délai bi dem ci meilleur délai. man nag baat meilleur délai boobu ñuy fulu. Mhm. naan ay xaw ma ñu lay ful. yooyu lañ war bàyyi sëñ bi mbir mi nañ ko wax mu leer ñii ci ay caaxaan lañ nekk. man du ma la fekk si caaxaan yooyu naan la ay meilleur délai ou bien ñu def ko nu mu gën a rafetee munul nekk munatul a rafet président Macky xam nga lu mu dese. 2 avril waru ko fee fekk te élection amul. mooy li li li waa ji waxoon laylatul xadri nga koy wër ci lu dul weer koor. waaw mais indi coono <laughs> rafetal geeg wër-wërloo gi benn dem gi rafetlu ma ko. soo xasee dem ñaar dong moo mën a nekk président gis nga lii nga ñu woowee jarul débat yow yaa am sañ-sañu jàpp date bi <laughs> te loolu sax conseil bi walaay da koo jox cër rek te xamu ko gis sëñ bi nañuy xalaat daal conseil constitutionnel xaw ma ña fa nekk mais gis nga li ñu ko delloo ci mu jàpp date dañ koo jox cër dañoo jël seen décision yëpp ba pare won ko ne ko nag yaay président de la république ubbil ko buntu mu mën a jaar fu ko kenn dul xasee wan ko ne ko nag jàppal le meilleur délai balaa le 2 avril nga dem mu jël kayit ba ne ko fa teg fukki fan ak ñaar xoole ñi ko ko joxoon depuis xaw ma la trois xaw téye na affaire bi 15 jours naan waaw dinaa ko def rey bi ba mu jeex tàkk mu door a ñëw di leen laaj naan leen ndax lim ma wax nan laa koy defee loolu ñan ñoo ko koy wax yow yow la joxoñ président bu amoon kenn kum ciy waxal les préfets les gouverneurs. ministre de l' <laughs> intérieur. candidat yi nu recalé nga xam ne mën na am bu ko bëggee tëgg dana wàññi seen jouru campagne su amee ñum ci mënoon a wax ak ñii la waroon a doon. 19 candidats yi nga xam ne jër nañ leen. ne leen fii ak le 2 avril dafa xat est ce ngeen ñu wàññi jouru campagne yi. parce que ñoom it am nañ ci sañ-sañ te li ma gëm dañ naan ko bismillah malheureusement deful loolu mu dem di jëli ñoo xam ne amuñu lien ak élection pour rey temps bi ak bëgg a ne ba léegi maa yore nguur gi maa yore pouvoir bi bi dañ naan la fii ak le 2 avril président amatoo sañ-sañu toog fi di def di dindi lañ waxante woon ak yow jeex na sunu kàddu fii la yemoon fexeel la 2 avril balaa yegg si organiser élection yi jébbale réew mi dem sa yoon ki la fiy wuutu sa yoon nekku ci. ok président Macky Sall du moo ñuy tànnal naan ñu islamiste moo leen di jiiteeg rebelle moo leen di jiiteeg. benn force occulte moo leen loolu yoonam nekku ci askan wi mët nañu mët goo xam ne xam nañu ki gën ci ñoom ñu tànn ko ok waaw te moom wax na ko nee na mi ngi saluer mature bi nekk ci askan wi ak seen euh, sagesse ba pare yow mënoo leen a bàyyi ñu tànn yàlla leen di utal naan leen réew mi duma ko bàyyi ci condition yoo xam ne ëllëg mën naa nekk catastrophe doon nekk ci catastrophe sëñ bi du ñu yegg moom fii ok euh, bëgg naa itam ñu taxaw ci amnistie bi nga xamante ni euh,